télévision wal ku ma fi musa woo fii ma tok ni diw laa soxla bala midi yalla ak mbaxam sama téléphone ni kar budul mom, am ko ni ma dama lay booleeg mom ya ngi rappelé wu euh, ci biir semaine bi xam nga dugalon na fi ben <laughs> ben TikTok sama waji ji muy Mamadou Mansour nga xam ne dama ko bëgg te yalla rek tax ma gis nak un jeune mu TikTok ko ma jël ko mettre ko en valeur euh, ci télévision généraliste nga xam wal Walfadjri ñepp dañ koy seetaan bi mu jàllee ma ne nag kii képp ku xam fu mu nekk wala fu mu dëkk man Thiama soxla naa ko fii ci plateau bi wax ja ak duut baaraam ñoo ànd mi ngi tudd ndekete soldaaru sëriñ Babacar wala nga ni Serigne Mbay Jaxate soldaaru Serigne Mbay Jaxate et eh, Jacques doon laajte di ko wër ci senegal te mu defaloon ñu TikTok ba est-ce que man nga ma koo jox sénégalais yi xool ko xam ni ki doon laaj a ngi nii waa jaa li sàcc bi bañ waa jaa ngi nii de barke yonent bi kii mooy yem àdduna bi se kii nii xoolal man xaw ma Modou suur la xaw ma moom Ablaye Bob la xawma ma xaw ma Biteye la hein mais li mu yor ci inspiration toogaalewu ko ni gumm nag boo ko gisee da nga naan kii daal du ma bëgg a wax ak moom ndax daa noppi ndekete ay la yéen damaa ragal yàlla bu mu xëy rek dóor benn caawaas mu ngi tudd soldaaru Serigne Mbay Jaxate soldaaru sëñ Mbay Jaxate maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay delloo nuyu baax micro bi jëlal micro bi. maa ngi lay delloo nuyu baax xoolal toog sa néeg man moom sama émission. xoolal bul bul ñooru ci dara xoolal fën duma la laaj luy naqari sam xel wala looy sonal cim xel ci xol. dañuy foo ree waxtaane ko. adduna bi bi ma toogee fii laajte la ci télé bi dama lay bàyyi nga nuyoo ba pare yow yaay soldaaru Serigne Mbay Jaxate soldaaru Serigne Baye Diakhaté ñu ngi ziar. lay ziar euh, di nuyu képp koo xam ne setan Walfu TV. di len ñaanal jamu di ko sàkku ci yéen. di am mbégte baax. ci teewaay bi fi ci Walfadjri. ci Walfadjri di am mbégte lool nag ci jàkkaarloog sama waa ji Thiamas. mbégte jàkkaarloog man ah. mbégte mu yaatu laa ci am wax dëgg yaatu lool lool lool wax dëgg yàlla bi ñu ma ko waxee nag gëwee en tout cas li ma ñaan waxal. suñu gaynde yi yal na leen yàlla may coupe bi yàlla may coupe loolu moom dañ koy ñaan suñ boroom defal Lion Sénégal yi ñu indi ndam li amin waay ndax moom rek lañuy ñaan amin waay amin suñu bëgg-bëgg yëpp mooy Sénégal jël coupe bi dëgg la du demi final du mhm. final ndax mhm. jaar na fi mhm. li ñuy yittewoo dëgg mooy jël coupe bi indi Sénégal. mooy li Macky Sall wax. li Macky Sall wax ne. waxuñu final waxuñu final la ñu bëgg. kon nag ñoo xam ne sénégalais yi yoo xam ne yaa ngay fële ca Cameroun di joŋante. Uh-huh. na la wóor na li suñu bëgg bëgga mooy. Uh-huh. nga indi coupe bi Sénégal gii loolu rek lañu ñu bëgg. waaw yal yàlla barkeel sa kàddu te lan moo tax nga tuddee sa bopp soldaaru Serigne Mbaye Diakhaté. li tax ma tudd soldaaru Serigne Mbaye Diakhaté nag. Uh-huh. ba ma ko laajee lu may sawar la. maa ngi yaroo Xuru Mbàkke. Xuru Mbàkke. Xuru laa yaroo. est kon yow. bokk ci waa kër Serigne Baye Jaxate Bawal Bawal. yaa ngi ci bir Bawal Saalum ba noonu waaw d'accord Kourou Mbacke di waa kër Serigne Baye Jaxate. Eh, sëtoo nag ci Serigne Baye Jaxate. te ku ne xam ne Serigne Baye Jaxate jàmbaare l'islam la yoo xam ko tudd ñëpp xam kan mooy Serigne Baye Jaxate. c'est la famille Xaalima Jaxate. fa Xaalima Jaxate kala d'accord. est-ce que mhm. macha allah. Mhm. moo tax ñu nekkoon fa nag di fa liggéey. Mhm. di fa tërbiyewu. ci doomam. Serigne Moustapha Jaxate ko ñaan yàlla suñu borom. xaari ko ajjana mm-hmm. di ñaanal njaboot sëñ Baye Jaxate ga fa nekk yëpp mm-hmm. eh, di jiidal sëñ Abdoulaye Jaxate xalifa général xalifa eh, sëñ Baye Jaxate mm-hmm. suñ borom taxaw ko di ñaanal tamit sunu wasila sëñ Mourou Jaxate suñ borom yàggal ko fi te may ko wér yow fan nga nekk fii ci diwaan Dakar man maa ngi yëmbal yaa ngi yëmbal tourna léegi message bi yow noo ci jotee ci télé bi waaw message bi ni ma jotee mooy dama toog eh, ci suur bi nga ko lancé

Walfadjri mhm. ñu teg sa benn vidéo mhm. man sax awma TikTok waaw waaye damaa seetaan ci tele bi caamaas mu wane sa vidéo ne yow daf la bëgg invité ci semaine bi ñu jëm mhm. ma ne ko man mu ne waaw maa ngi koy nuyu baax muy sëñ Aly Niang ca Côte d'Ivoire sëñ Aly Niang sama fans nga yow maa lay nuyu moom ca Côte wax dëgg yàlla di ko di wax na lépp mu jàppal ne émission bi yow lañ ko may ndax yaa tax suñu première euh, thème télé jàppal ne ci yow la euh, mën nañoo mën nañ cee may jot kon ñoo ñaanal bu baax fa nga nekk suñu borom defal la tawféex. moom moo ñu jo envoyé audio wax nañu. Mhm. Thiamas yow la invité semaine bii ñu jëm. Mhm. ma ne ko ah mu ne ma waaw ci laa dugg nag ci Facebook bi ma recherché say émission. waaw gis ko. Mhm. mu wax ko ma ma dagg nag ma gis benn benn benn wax boo waxoon waaw numéro bi nga waxoon ne ku topp am na ko benn benn vidéo boo loon waaw kuy def saaro ginaar affaire di ko topp da nga ne ku ko man na envoyé. Eh, kiyam ci vidéo ci ci numéro boobu ma daal ci woote ma woote mhm. daal di jot euh, benn waay expliqué ko mu ne ma muy Pa Ousmane Pa Ousmane d' accord mhm, waaw mu ne ma sama numéro ñu waxtaan mhm. ci moom kii nekk Côte d'Ivoire nag envoyé na ma sax seen numéro WhatsApp mais mi ci wootee demul ok nga xam ne kooku moom mi ngi leen di suivre bu baax a baax a Ali Ñaan suñu Ali Ñaan nga ne fu mu mi ngi nekk Côte d'Ivoire sëñ Ali Ñaan Côte d'Ivoire lépp loo fa bëgg yàlla na la ko fa yàlla defal ci barke Serigne Fallou amiin eh, lan moo tax defoo yeneen TikTok nga topp journaliste yi rek yow teg leen bët ni leen sañ sët leen nag ci miiru wis bi mayoo jàmm Mohamed Mamadou Mohamed Ndiaye Mamadou Mohamed Ndiaye ma da nga koy TikTok mhm. da ngay TikTok Ablaye Bopp da ngay TikTok Bitey da ngay TikTok sama xarit bi te nag sama xarit boobu il faut ñu taxaw fa muy Mamadou Mansour mhm. euh, non seulement il est l'avocat du peuple mais gis nga noonu mu mel mhm. kenn mënu koo dindi ci moom noonu la mel lenn naa féq bëggu ko nit ku dëggoo ngi noonu ku dara feesul bëtam nag mu ngi noonu boo tegoon fii ay milliards mën na koo jéggi dem ku doylu tamit mi ngi noonu maîtriser nag ci li mu nekk mooy lu ko askan wi jaral jaral na ko caabi féetee ko ginnaaw sénégalais yi dese nañoo xam sax waa li ko sénégalais yi jaral dëgg ak euh, li sénégalais yi yelloo te keneen bëggu ko ŋoobu mhm. kooku jaral na Mamadou Mansour joxe bakkenam euh, donc maa moom nekk nañ seen TV mu nekk koo xam def nañ ñaari at daawuñu ànd guddeeg bëccëg waaye saa wuñu dajee rek da ngay xam ne xol yu dajee lañ man ñime naa ni Mamadou Mansour sama xarit la nga tiktok ko mais il faut ma ni Pa Ousmane demal nga indil ma kii lan moo tax sa choix nga porte ko ci journaliste yi di leen tiktok waaw loolu moom dinaa Mamadou Mansour Diop Mamadou masuk Diop démb dama ko dama ko woo avant may ñëw lu masuk soxla ci dëkk bi mu génn ko mu mu mu rafetlu ko lool ni ma lool am naa ci mbégte lool masuk Mansour Mamadou Mansour Diop yow la nga ko woo téléphone démb ci guddi bay ñëw eh, bul lu mel ni lu mu wax ci man <laughs> rafet la wax ci yow nag ah? mu ah. doyul dëgg moom it ma di ko sant bu baax di am mbégte ci moom mhm. ndax eh, wax naa ko dem nee naa ko cofeel ga dafa jiitu mhm. lii di am di tiktok yu mel noonu cofeel ga ko mhm. jiitu te nit ki nag cofeel da nga mën a am ci moom waaw wax dëgg yàlla am naa ci moom cofeel gu bu baax a baax baax baax nag léegi yow xam nga yaa toog nii indi indaale woo bagage yi daa ah. indaale nañ ko mais bagage yaa ngi fii ci kër gi bagage yi ci loo xamul passement eh, soldaaru Serigne Mbaye Jaxate mii toog waa kër gi la njëkk a yem am laay bopp ab Ablaye Bob man ñooñu laa soxla fi ne euh, li nga def ci Ablaye bopp def ko ci bité euh, am ñoo xam ni wane nga leen fii euh, des fois man dama naan lu tax toppaloo journalisme ndax tey kii di Lamine Samba mhm. jaarul sësti Lamine Samba boo ko joxee journal mu def ko en wolof Mohamed Biteye mii ngay gis jaarul sësti école oxygène ñun lañ jóge mu maîtriser ko ñu former ko ci tey ki jógee sësti li ci Mohamed Aydara man ke kooka mënu ko ci li euh, ci Mohamed bi tey autant autant pour man Ahmed Aydara mi ngay dégg tey mu commencé ci micro tey ci lu mu jeexalee ci maire mhm. tey il est le maire de la ville de kon dafa am loo xam ne jombul kenn mhm. pourquoi boo amoon une formation ëllëg mën ngay joxe ay xibaar comme ni nga koy defee nii bu baax baax ndax Euh, mbirum journaliste dafa nekk luñ ba maanaam mbirum. tas xibaar yow jàng nga alxuraan jàng nañu alxuraan. waaye jànguñu français sam xel fi mu ci dugal mu dem. incha allah xañ na am sax yu làqu yoo xam ne nii. Ah. mënaguñ ko wane léegi waaye nag ah. dañ bàyyi ba ci kanam ndax. yow yow ku bari mbuut nga xamul la xam xanaa mooy yow Paz Man xam nga meex seet. naan ki du wax mais xoolal lii mu def et eh, jox ñu ko waa kër gi la génne. yàlla baax na yemook euh, daanaka mbokkeek xarit yi huit heures di juróom-ñetti waxtu jot na fii ci Dakar ak euh, li ko laaj ci Ablaye Bob ah euh, laaj la ko ci ki nga xam ne mooy Seydina Omar Ba eh, eh, eh, dafa naan pasement bu mu dugg de bu mu dugg su indil ma chaise indil ma chaise sama wet indil ma chaise pasement dugal dugal duggal ci plateau bi lii moom <laughs> du da aay rek

mais tey rek ngay xam ni Walfadjri rek la Jacques ñu président de la république ludul ben du ñaar wax na ni saga yi mi gis ci internet bi lu ko metti la waye bobé ba légui mel na ni safara ci mu jur daal bëriwul mbir mi nak du mer diko wax jëf ngir mu dak la. te jot na sëkk fi mu ne nii doo yem rek ci ñey toog ci Amérique di saaga nga leen di indi ñuy ñibbisi ci réew mi ñi ci réew mi te dàq leen ko def nag la police cybercriminel war a dàqe ba jàpp leen fu mu leen mënti jàppee ñu teg leen daan yoo xamante ne nii dinañ xamal askan wi yépp ni ñii doon saaga di ko jaarale ci internet bi moo tax ñu teg leen yii daan. est léegi nag xoolal ku doon laajte faali ngoye gi du yow yaay soldaaru sëñ bay Jaxate Ablaye Bob euh, mu ngi nii toog ci plateau bi de ah Jacques sa waay ñëw na de <laughs> Pa Ousmane du nit Pa Ousmane yéen police bu ngeen bëggee xoola ay recherche bu ngeen bëggee xoola ay recherche ak yooyu bu ngeen seet am ko recruter Pa Ousmane il est efficace Pa Ousmane indil nañu benn témoin léegi Jacques damaa bëggoon nga tegal ma élément bi ba pare élément Ablaye Bob moom mu commentaire ko mu ngi nii toog ci plateau bi ayca c'est parti yàlla baax na yemook euh, daanaka mbokkeek xarit yi huit heures di juróom-ñetti waxtu jot na fii ci Dakar ak euh, li ko wër lu ñu def lu dul dégtal leen xibaar yi fi jotalu sënde Abdoulaye Bopp léegi nga yàngook jërëjëf vous écoutez baatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu juróom-ñetti waxtu jot na ca bandeñ wolof bandeñ pël bandeñ euh, fas jàpp Kébémer ba Lugalo la ca gën a fës ci boppu xibaar yi fitna ca Casamance euh, bokk na ci ñi euh, gor garab yafane ba tax na jàppante nag dox ca département bu Bignona ci diggante l'armée bak kuréel ga boot fippu ya ba am nañu ca jot ñàkk seen bakkan ci l'armée gi da ngeen ci dégg leeral yeeg Amady Khalil Diémé eh, buñ ca toppee buñ ca noppee dégtal leen xibaaru yéenekaay yi mbokk yi bu nees gisee ma dikk ak yéen ci atalum xibaar yi. sans sans faute sans faute sur 20. Ablaye. commentaire bi euh, am na solo dama koy notel vingt sur vingt. am nga euh, ndax euh, waaw topp na ci notes yi. waaw te itamit feem yi topp na ci. gestes yi yenn <laughs> ak loxo yi. <laughs> waaw yow xam nga ci dara. man bu may wax damay gesticuler. waaw. ba tax na itamit bayina ci xel. te itamit. c'est la première fois nga gis vidéo bi le mu def. waaw waaw waaw defe naa mos na def ben ñu yónnee ma waaw waaw bii mooy ñaareel xaw ma mais maa koy doog gis ndax dama ko doon wër. yenn saa yi ma laajte ñu ne ma noo waa ji ci TikTok bi la ne. laay koo soxla Sénégal ñëwal laaj ko Thiaman Show. waaw waaw léegi la ma Pape Ousmane jëlee bureau. Mhm. ne ma am na lu xew ma ne ko lu xew. Mhm. mu ne ka leen di toppandoo. Mhm. waa ji ñëw na ma ne ko loolu mënta ne. sànq sa ginnaaw. Eh, dama ni ko pourtant lii ngay fowee nii. waaw ci ñu ngi koy fowee. jaaruñu université. Ablaye boobu dafoo université journalisme. tey da ngay présenter xibaar. Seyna Omar Ba. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. gaa soxla woon na maire bi amu ko. amu ko waaw mais jaarul jaarul sësti. tey mu ngi day def journal. Mm-hmm. Eh, ku mel ni Mohamed bi tey. jaarul sësti. Lamine Samba. day def journal te jaarul sësti. pourquoi est-ce que gisul am occasion wala ku ko teg loxo. lii mu ñuy fowee nii ëllëg mu doon ko. waa mun na nekk eh, gëm naa ne sax lay nelaw ci moom yeewoogul. mu ngi ñuy toppandoo waaye mun naa mun naa liggéey ci lu yaatu ci métier mi euh, ndax mu ngi ñuy suivre nag mm-hmm. euh, te ku xam actualité la mm-hmm. ndax saay buy toppandoo nit euh, day tegu ci actualité mm-hmm. te loolu dafa am solo li xew ca Casamance ñoo ko déggandoo ci la mu wax ki tamit nu mu ko faram-fàccee loolu am solo ba tax na daal mun nañ cee am ñaareelu Mouhamed Ndiaye ñaareelu Ahmed dara ñaareelu Abdoulaye Bob ñaareelu Mamadou Mansour gis na nu mu toppandoo Mamadou Mansour donc ndaw la goo xamante ne mun naa def carrière ci métier mi. yéen aussi may ngeen ko doole. ndax xëy na mu ngi ko doon def muy jàll ci TikTok yi. tey nag jàll na ci Walfadjri ñëw na toog jàkkaarloog téléspectateurs yi donc euh, dañ lay jaajëfal bu baax a baax euh, saay bu ñu juumee nag nga wooñu wax dafa jafe yenn saay ñu wax boo ba wax lu waxuwul. Mhm. saay boo déggee ñu wax lu waxuwul daal nee nu Abdoulaye bu ma sañoon. Euh, kenn amul sa fay aussi ndax mhm. munoon nga xool ci leneen ak leneen mhm. waaye jàpp nga ne xëy na ñii di liggéey lii tey mhm. euh, askan waa ngi leen di bàyyi xel ba tax nga bàyyi loowaatool xel aussi askanu Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow daal am nga mbégte ci lii waaw am naa ci mbégte lool naa ci mbégte lool